ti wax rek mais que jalaate o wiin we ngidim keram waaye kii ma moytuwul dinaa ñàpp xoona su ñëwaat ndew waaw nakam ça va ndew luy xuntu luy saaga ki ngay problème na ki dem kan moo fi dem xaw atuman, atumaan lu ma doon gis nga atumaan moom noonu nag tey nag dinaa la wax dara nag atumaan papa <laughs> moo fi ñëwoon dem ma fobeere ba pare fii yëpp la takkal dem. dara déglu ma man loolu doon dama koy bañ. ñoom ñaar ñu ngi moom lan moo ko dal ba ñuy dox di lonkante. maa laa yére yi bu sol moo bari fu muy dem dina lonku nit ndax du ko attan. xoola. moom bañ a moytu daal. déglu ma longu temps mooy xoola ànd bu yàgg mooy longu temps. moomoo nag yaa ko tey yow jànguma jànguma ba pare soo ñëwee di lakk ay français rek. temps nag foo mu commencé laa jox cours mais nag déglu mu wax la nag ndew ndew nag tey dinaa la dinaa la wax nag dëgg nag ndew gis nga boo bëggee yàgg ci dëkk bii nii kër gi boo fi bëggee yàgg il faut nga bàyyi xuloo bi màtte beeg gajji beeg euh, songante bi nga ndew keroog bi ma dóoree ba sama paaru côté bi nii di metti ba léegi nii nii nii nii mënuma nelaw normal du du yaa ko loolu nag gis naa ne moom sa genn kër gi naa génn kenn wax genn ban kër gi fii de bëgguma fee génn moom wax dëgg ak yàlla moom. comme que man def na nga bàyyi ko rek waxuma la oto de lay lay yeb la ma jam de sa gémmiñ gu umu bi nga yore. Oh, sama hari nga waaye Paar waa nga dangay jënd yoon. te man bëgguma loolu man su ma rek damay takk damay mbokk miiri. waaye kooku ma waxal ak man nag du la merloo su ma waaye wax xoola gérer ko rek sa kafe gi nag neex na trop tey lay togg dimaane ma lu ma yàq rek nga lekk comme lekk rek nga fi nekkee loolu ah, moom amul nen lu ci wax ah. may dem kor ko ko mina anone ha wuran na garla juma de juma viu ke ke juma viu kana kam hi wa yo ya zam ke ke ref jam wa kam hi ja ya hi do on oh, ko worto na wino yakan ha de o ke anda ke ke wara ano lahat da lahat deran dudula de bin mi ke acuma am lahat din nan ke ke jamo kafe bi neex na. sa àdduna daal nii laay def. yàlla baax na. waa grande sœur. Mhm. yow la moo tax nga naïf. naïf. Hmm. ci lan noonu. ah man kat dama xam ni sa jëkkër. Hmm. jour de semaine yi yëpp liggéey. Mhm. benn fan laa gis ni moom lay toog ci kër gi. Mhm. te démb damaa constaté ni bi nga nekkee fii mooy xaytam boobu dugg si. kooku noonu nga xam ne amul sax gel bu dëgër mu naan da koy yóbbu ak da di seetaani ay mat yow nga bàyyi ko mu dem lan <laughs> daal naa la ko xamal de lu lay nakkari ci moom mi lay jógee. baax na daal yow lenn kase nga ma fi wax muy waxu ko fiir man maa fiir si ñoom ñaar ñoo xam ne yow depuis xale ñoo daan ànd ba tey kii dem Europe ñëw ñibbisi ñoom ñaar ñu nekkaat nga bëgg man ma féewale leen mais dimanche lañ am te football lañ doon seetaani Sénégal Barça. waaye ndaw sama. fan nga mosee gis Sénégal ak Barça ñu ñu ñu ñuy joué. ah fii stade xaw ma Ngalandou Diouf xaw ma. Barça. yow toogal relaxé dégg nga ba mu génn may ko ci xale yi xale yi wóobat yi ci biti. su boobaa nag ci ngay xam ni yàlla julli rek la santaane. Marème toogal rek yow Marème hmm. maa xam lu nekk ci dëkk bi ma la koy wax baax na dootuma la ci waxate dara. déedéet yow ma la waxaat dara man kay moom léegi damay kuul di la seetaan ma xaar jour bi nga ñëw tëdd fi mu ne la. muñal muñal yow. sa wax ji rëy na de. dama si waxaat. war ngaa wàññi sa gàllaaj te ñu jam la. Hmm, hmm. benn jour dina la kii de may la café allo waaw Pape Taw naaf yoo koy waaye jam jam soom kay i maa yee maa yee rek góorgóorloo <laughs> waaw waaw waaw xam naa ne gëj na ñoo déggante moo bajan nag yow tamit nag nan laa ñëwee Ndakaaru te duma lakk olof <laughs> mais yaa ngi ci jàmm naka waa kër gi ana waa penc ba ah, a ngi ci jàmm <laughs> yee bajan na sama sama boy bi laa la bëggoon a laajte waaw bi jur na ah jurul nak danga bukalis de ko bukalis de bukalis vi o oh, mi adam kene yam ngolonga kon ka wule rek mi ana on kaya apa i ka ko yo sin ka mes fop na jam i haya na ha rek waaw waaw lol mom dëgg la xam nga liggéeyu ndakaaru neexul ya rek waaye nag kër gi ma nekk hee neex la def waaye yow dangay lekk bay borongu ba pare lii ma gën a neex waxuma la macaroni bi de mooy mooy ceeb bu gud gud bi nga xam ne dangay <laughs> dangay sampo sa mooy mooy mooy euh, sa rato rato boobu rato bu ndaw bi di ko wundeel loolu yëpp am na fi waaye sama gisatee doo ma xamee de maa ngi nii di sarbaate rek <laughs> waaw waaw ba pare waaw waaw waaw pap taw koy layim kene koy de eh o ko fiya mo ha a koy de mo sama ser bi dama ko tak ba mu deger ndax xam naa ne góor góoru Ndakaaru ay saay mo suñ ko ajee tamit fekk fa baax mo lag soo damay jiital dama jiital jiital ba sama tabi tabi bëggoon na waaw waaw ndew tiga jaga dek hmm? wah patarol kon yodak ya, mayer Iya do ah ya, nai dah hete do yeglu ab ndem sama kelane ya, di ah memang ay do den del keras keras karas ma xam ne nit angi ñew puta karas na ke yow xana ya concentré wu tamit sa di wa ah do dara dang ma li dem ci man ñëwaatul ba tay wuy téléphone man ma ñëw soxla la légui li dem ci yow ñëwaatul mais nga rek sama biir ke yow lu do wax téléphone ah dara wa légui ke loolu ke dara ko ci da nga do raxas li li li laa li ndab yi la don dab ñi rek wa légui c'était juste pour te dire que nga àggale ko nga ñëw yekk añ bi waaw dinaa ko yëg. waaw kay loolu laa doon doye ah. waaw dinaa ko defar. yow mii def nga de. patron yi nii la ñuy def rek dañ kompa kompa dina loxati sa mboot yeeg sa ginnaaw yi ni nit waaye man dooma xamal dara man dooma xamal de di nga xam ne maa la gën a naan étation di di di di dox te doo yëglu loolu mos nga koo gis. kaay yow est-ce que am nga job. Euh, noo tudd. dimbale ma keroog xam nga ne ma tudd ngay naan noo tudd. yow loolu tax ngay dugg ci kër yi nii di génn rek. gis nga yow yaa ngi mel ni yamb ci sama biir caleçon bi. kon de sax da mbir man ak papa duñu ñaar kenn lañ. yéen a xam te yaa comprendre ah. gis nga boo dof dof loo dof dof dama koy wax mu génne la ca xaj. lan. Ah, foofu nga toll ah? jàppale ma rek ngir yàlla benn liggéey gii laa am. jàpp ci rek ngir yàlla war a suulu. ah na. bon jàpp ci rek ngir yàlla man euh, maa la ko ñaan. déglu ma déglu ma. ay waay keke sa boo bëggee ma jàpp si. bu bëggee ma jàpp si. waaw dañuy toog ma daaj ma am lu ma la tegal. comprends looy daaj xanaa cinq minutes wala ngay oh, daaj yow bul jéem a kii yooyu boo ñëwee toog rek ma tegal la benn affaire ñu waxtaan dinañ jubóo dama ah, keke jam ah, jiitu ma jiitu hmm. ah, euh, euh, Ndew waaw gisee yow euh, da nga xaw rakkaaju rek mais bon Ah. man kay xam naa loolu. ah keroog yaa ngi ñëw rek di jiital dën te man dën daf may daaneel ci nit. ah sama pekk ah. <laughs> yi ah. léegi bu bëggee ma jàpp si nag euh, amoon nu ñuy def. waaw dañuy ñëw ma jël la ñu ne la town bi. jël yow da nga maa gisoo nu ma tol xana ah yow tamit nag. mooy dama lay yaa ngi komp bu ma lay doxaan parfois ma daal di jàpp sa loxo nga sañse nag xoolal yi nag donc koy dindi da sañse parfois mu yóbbu la si maire bi nekk si koñ bi di jaay crevette ak fataaya hmm. ñu daal di jël fataaya deux cent crevette deux cent parfois ñu dem soirée ngeros yëngal ba mu neex yaa ngi komp hmm. yaa ngi dégg ah? parfois sax euh, naa la invité suma nekk soo nekk yow mii caaga nga de yow boobu tàmbaleegu gu ñukay duggal ci ne. waaye garaawul yooyu noonu ah, yëpp après lolu boko ma ci ya, de man. eh léegi d'accord accord nga si doxaan bi wala d'accordo man kay won man am na ne ba ñu ma la de. xam nga rek ni ngay ñëwee ci kër gi looloo ma ci naxari rek. te xam nga ne yow ci kër gi man man man man ci kër gi xam nga ne ci kër gi duma dara laaj. Hmm. paanu mbalit la wi de pour ma pour ma jóge wi yombul ya, nonu ya, de. wax dëgg ak yàlla ah paanu mbalit nag paanu mbalit bo gis. Hmm? borom auto mbalit bee ko fi jele may borom auto mbalit bi dafa lima la wax nga nek ci kër gi muno ko boy genn ken dula neexal dañ lay kàjj man nangu naa nangu naa nekk ak yow <laughs> nangu naa kay <laughs> yow salaamaaleykum alaykum salam nga joxe le yow la la ah! legui bon xaaral dem si papa ma ko mu dakh la taa taa daw daaw xoolal doo si yàgg da ngay def nank rek do gaw xoolal ma wax la leen nag doxaan bi nag dañ ma ne sama set bi naa ko takk fii ko ba mu baax waaw am nga yéen ay saay saay ngeen déglu ma yooyu ko ah. gis nga mbir yi step by step maanaam nag tekk tekk mooy jàpp golo ci ñaay hmm. yaa ngi dégg bu ci eggee rek yooyu noonu yëpp après dinañ xool ñu koy gérer mais yow may ma fii benn yow tamit nag gaaw ngaa caga de yow sa caga moo gaaw ah, dama caga ah. waaw waaw waaw taxawal ah. eh bon yow.